Euh, semence ak sa doomu sénégalais bi nga xam ne dañ ko sous-traité ay marché te moom du ci dara parce que kër yi ñu ko présenté baax na soo xëyee arrêté ko di nga lor liñ daan ñax goow dina lakk ba lakkaale gu tooy ñun lool moo ñuy dal ci projet yooyu mhm. jàpp naa ne Sénégal nit ñi topp bu ñu ko toppee ca gouvernement parce que ñoom jéggi nañ léegi régime Ablaye Macky Sall ñu ngi ci régime Ablaye Wade parce que boo ne Tobacco rek dugg nga ci Ablaye Wade Tobacco ñun ñëw dañoo fekk mhm. gars yi dugg ci biir bi Macky la ñëw ñu daaneel kër ya newoon ci biir piste bi yamalewaat mur clôture bi fa mu yemoon mais li li bokkul ci mur piste bi loolu nag nañ ko attribué jaar na yoon Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye ñu ngoon impôt domaine Amadou Ba moo nekkoon directeur général impôt et domaine man dama ne suufu Sénégal ak alalu Sénégal nañ ko saytu ba mu leer. Mm-hmm. benn Sénégalais mais si jamono Macky Sall lañ leen ko joxe. non dama ne tey boo xoolee littoral bi fee ñuy wax ne coow li bëri na mais gis nañ littoral bi. non bi ngay wax noonu. ñu mujjee am. dama ne Tobago ñun balaa ci jamono Macky lañ ko joxe. Tobago ñun bi ñuy falu laa wax dañoo fekk ñu dugg nii ci biir piste bi man bokkaam laa dëkk ñun ñëpp daf ñu naqari woon. non xam naa baax ngeen wax biñ paree Macky Sall daa ñëw daani li yëpp mu yem fi mu yemoon ma ne mu yem fi mu yemoon léegi nag fi mu yemoon comme impôt domaine lañ jaawoon lépp fa la jaawoon dem xam nga suuf dafa am ñoo xam ne ab dof du ñëw di jël suuf ci lu légal Ablaye Wade toog na fii may ay kilifa diine la nañ jël au profond gisoo biir kasa bi fi nekkoon littoral bi fii nee naa la ba mu jeex gis nga lii buñ ko toppee ba mu jeex da nga gis kilifa diine guñ dugal ci kaso bi parce que Ablaye Wade da ko mayoon suuf mu dem impôt domaine gars yi rus ko defal ko këyit gi moom am titre foncier mu dem jaay ko benn promoteur immobilier bu dëkk Europe mu ñëw def ab turc wala ab israélien wala keneen mu ñëw investir ñooñu duñ gëmuñu alaaji Malick gëmuñu Sëñ Tuubaa gëmuñu kenn koo mën a doon bu dee jaar nga leen suuf mu am problème alal jëgal leen ko jaay dañ ko delloo te xam nañu Ablaye Wade jël magistrat jël kilifa diine yi jël ku nekk may leen pour coow bañ ci am gis naa sëñ Baara géej wakaam nañ ko joxoon mu delloo ko te gis naa ay xalifa yoo xam ne delloo wuñ seen suuf gis naa ci ku jaay këram 1 milliard 700 millions terrain ça veut dire que si topp kër kër amul problème amna na defal nañ ko am nay kayit ba ben italien jël ko investir fa hôtel bu mag légui nañ ko top bam mu jeex dama né problème yi buñ ko topé fi ba 2029 ay problème parce que problème yi ñuy soulevé mo mo moo bëri parce que dafa am période bo xamné période souffle la ñun bi ñëw que aéroport mo ci desoon ak ak littoral ak ak ak ak ak littoral bi feulé du ñak amna ay suñu directeur général impôt Macky Sall miiru camp bi fi man ci ñu opposé la bari bokk biñ dama def point de presse dal ci kaw état bi ci man ngeen ko jox ngeen fi mais douze mille mètres carrés vari bi nga xamné dañ ko wara jox wa quartier bi école dafa marché dafa poste de police dafa gendarmerie dama ci ak état mu bind président Macky répondre nañ neuf fois mu Modou Gueye Modou Gueye ñëwaat nañu mètres carrés leen jox mané ñun dara du ci bañ na ko ba nanguwul woon signé dara ndax xam na ne ci boole ba tey boo gisee tabaxuñ ko assise géen nangu leen jox benn autorisation de construire aéroport bi daggoon nañ ko pare lu tax mooy leen nañ ko delloo ça veut dire mu ngi doon dem mais am na lu mu doon protéger boppam ndax ñun dañ ko doon dañ doon bañ man wax am laa dëkk te affaire laa bokk bi mu ñëwee dama ne 12 900 mètres carrés parce que dañuy dagg Dakar ba mu jeex même fu duñ génne mais nag na bu koy wax na jol na waxtaan quoi Mhm. parce que bu waxtaan amee dinañ xam doomu sénégalais bi gagné woon marché te ñu joxoon ko kër gu am titre foncier jox ko kayit yu leer ñu lancé appel d'offre mu gagné benn projet di ko liggéey nga xëy arrêté ko. Mhm. da ngay lor ki doon tabax nga amal problème ki joxoon suuf si mais di nga loraale promoteur bi jëndoon. mais danga nga loraale encore chef d'entreprise sénégalais bi nga xam ne moo gagné marché bi kooku tamit loraale sénégalais yi doon liggéey ci biir foofu te doon ay nit néew doole da ngay laal électricien laal plombier laal plâtrier laal lu bëree bëree bëri ferrailleur dafa seen la quoi mhm. tey boo ñëwee ne jakartaay yi da maanaam man yéenewuma leen loolu quoi ndax ñu ndaw ñu amoon ceew espoir nga xëy jël marchand ambulant yi d'accord naa de war nañoo defaraat mhm. loolu tamit d'accord naa parce que ndigoo ta a jaay ci mbedd nga xëy ne boobu moto yi nga xëyaat arrêté fee chantier ñu bëri delluwaat semence dañuy dem ba ñoom ni ko ni ko ni nga yaakaar ne gis nga xëy amul lu mu lekk ak njabootam te fee la ko yaakaar yaakaaroon loo ko mën a waxati du la dégg mais tamit faaw mu métti ndax rupture la ñu woote dama je me dis que ni premier mandat bi chantier la pour ñu mën a defaraat Sénégal kon kenn métti na tàng <laughs> yow nga def ay reportage yu am solo euh, ci ci ci ci ci mbir mi ba mu commencé ba tey depuis ñu euh, commencé woon ko arrêté waat